seen beneen acte du jour bàkk ba jib na nuy nañ leen comme nañ leen daan nuyoo amee internet de 24 actu bataaxal bi ñu jot jëm ci askan wi mooy njiitum réewum Sénégal di président Macky Sall dina janook askanu Sénégal ci altine ji bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee fële ca télévision nationale di RTS 1 ci Covid 19 la ñuy desandi wax bi la yoon ci ki nga xamante ne nii moo di Talla Sylla lam xam la rek moo di autorité yi ñoo tax feebar bi di gën di law nee na dafa mel ne dafa am ay complicité mbir mi ndax voyage entre région ba léegi mi ngi wéyal di am maanaam dem ci dëkk yeeg dëkk yi ak ñi nga xamante ni moo di jakarta yi ñu ngi woyal di dem seeni dem ci dëkk yeeg dëkk yi te li nga xam ne ci jàngoro ji mooy déplacement lay bañ ñu gis ne tamit joxe nañ ay autorisation ndax état d'urgence am na ñuy autoriser ñi nga xamante ni ñoo di préfet yi ak ñii di gouverneur yi moom Talla la daal nee na mbir mi ay njublam kese moo ko lal buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay boobule di Seneweb ci diwaanu Fatick la ñuy daal di jubali liñ fa gis rek moo di benn góor ay atam toll si ñeent fukk moom la ñu testé mu daal di positif maanaam amee jàngoro jii di coronavirus fële ca jaxaaw bokk ci région Fatick buñ sukkandikoo ci APS di agence de presse sénégalaise moo xamle yooyu les informations ca diwaanu Touba général des mourides di Serigne Mountakha Bachir Mbacké wax na ak mu Muxaddamatul Xidma ci dimanche bi ñu génn lam leen xamal rek moo di jot na président Macky Sall di njiitu réew réewum fii ci Sénégal téléphone ngir xamal ko dina génn janook askan wi talaata ngir xam xamle yenn mesure bokk na ci wàññi couvre-feu bi bu 22h jotee jàpp 6h du matin. ak ubbiwaat yenn lieu de culture yi maanaam jàkka yi jumaa yi ak yi nga xamante ni fa la ñuy defee yenn ñaan yi mooy lieu de culture nee na dinañ ko daal di ubbi ànd ak ba tey respecté yi nga xamante ne nii moo di mesure barrière yi maanaam ñuy respecté distance yi takk li nga xamante ne nii moo di masque yi di laal gel antiseptique yi lépp loo xamante ne nii rek euh, waa ministère de la santé digle ne ko ngir ñu xeex jàngoro ji di coronavirus Macky Sall nee na dinañ ubbiwaat li nga xamante ne nii moo di jàkka yi waaye du tee dinañ respecté barrière yooyu la ñi xam le yooyu la xibaar moo di waa IGFM ñu jeexale kook beneen ñaawteef boo xamante ne nii ma nga xewee fële ca Kébémer soxal loolu wàllum société fekk rek mooy ku kuy wuyoo ci turu tonton Diop. moo doon tànte ngir sàkku benn xale bu jigéen ci weeru koor gi waa ji ay atam mi ngi toll si fanweeri at bëgg a sàkku xale bu am fukki at ak ñaar daldi di nañ koy defeere alxemes gi ñu génn ngir tentative de viol lañu ko jàppee yëf yi mi ngi am ndikki altine ji ñu génn ñu bàyyi yoon mu wëyal liggéeyam ba xam fan la wànnente di mujjee ki gëtam lii rek moo fi nduuse ni woon ci ay xibaar ñu ngi leen di jox dig daje ba suba jàmm incha allah.